Pokola nuyu naa Pokola nuyu naa waaw maa lay fay. naka tey. waaye maa ngi nii rek. si jàmm. seen mooy yoon mooy yoon. mooy yoon suñu feral la bilaay. waaw dafa ñaanal ndam rek. waaw incha allah. Fourrière duggoon na si kër gi. Ah? kan la bëri loon. amul mu jaar kan non non waaw xam naa maa ngi koy yëg si yow. kon wàccaay bi. waaw ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm di préparé ñu si jàmm waaw. jéem nga seeti sa adversaire. waaw mu ne combat yaa ngi war di wax waaye bu jour ba di nga xam ne moom lim liggéey di pour yow. waaw nee ko baax na. neexoo ko baax na man wo wo woo ma site internet yi di wax. site yi ñoo may fekk si man mosuma woo site ne ko interview yàlla baax na. nee ko lu may bañ la lu muy bañ laa def dañuy xeex dañuy bëree. dafa am lu dafa am muy bañ moom. lu muy bañ laay def mooy day xeex day bëre incha allah. dina xeex dina bëre. dina bëre incha allah bu neexee yàlla dina xeex dina bëre. kon si lu raw li nga bëre woon dina lépp si am mën nañu bëre man ak moom may naaw si bi. loo ko yóbbu moom bu laal. lu liggéey na ko xeex. lu na ko xeex. dina xeex. dina bëre. ba jour ba yàgg. incha allah.